gor bu ñu toogee di waxtaane réew mënul nekk waxtaanu sox sox faaw mu nekk waxtaan wu dal waxtaan wu ku nekk di joxe xalaatam waxtaan wu ku nekk di génne li nekk ci dënnam moo tax ma ne bi ñu paree ci waxtaan ma jàpp ne livre bi ñuy bind le défi économique un bien commun jàpp naa ne titre bu am njariñ la war a dox dana nu continuer nag waxtaan yi ni mu ko waxee waaye loolu yépp ci dal lay aaju loolu yëpp ci jàmm lay aaju yéene bi kenn ku nekk ci ñun am ci senegal mooy senegal romb fi mu nekk waaye loolu ñi yor pouvoir dañu ci am part de responsabilité bu mag dugg si na ci wax na jaajëfal ñu ci li ñu taxaw moom bi mu nekkee ci jafe-jafe parce que jàpp naa ne man du doon man taxawaay bi ma ci taxaw taxaw bu ni mel nga ci am kon jàppal ne taxaw bi ñu jóg ci jafe-jafe joju daloon sa kaw ba tay ñu tek ko ci sa ndond d'ailleurs et yéene bi moy comme ni ñu ko waxtaanee mu nekk lu leer nañ Sénégal yépp tek ci sen gët ku ne xam ne lii am amna na leneen lu newon ci ginnaw te loolu ñun am nañu ci yow yaakaar wax naa la ko waxaat la ko j'ai confiance en vous et j'ai confiance à la justice du Sénégal pour que loolu ñu leeral ko ñu xam ne nit ñi la doon ruumanaat amaana jublu ci nasaxal nit lañu bëggoon kon réew mi am na ay piliers yoo xam ne kenn amul droit menacé ko et depuis un moment damay dégg wax ju may tiital ci réew mooy waxi waaso le c'est un discours dangereux et je dis la manipulation de nos appartenances ethniques il faut nous tête ko ci parce que Sénégal mérite tout. et qui ma interpellé au premier chef c'est le président Macky Sall dañ ko jox réew mu na fexe ba buy dem mu delloo nu réew mu ne ñum bu dara bën bënnul dara toju ci li nga xam ne nag moom mooy taxawaay waxtaane nañu ko réew mi am na ay nit ay ndaw yu génn wane seeni jafe-jafe wane seen mer wane li nekk ci seen dënn parce que réew mi metti na réew mi jafe na borom kër yi lañu ñu mënoon mënatuñu ko ndaw ñi am yéene dimbali seeni wéyjur mënatuñu ko parce que tout simplement environnement économique gu réew mi toll na foo xam ne ndaw bu ci nekk amatoo espoir ca fa nga jëm et loolu suñu responsabilité la muy moom président Ousmane Sonko muy man Bougane entrepreneur acteur de développement nous avons naka la ñu sauver le Sénégal naka la ñu de le Sénégal président Macky Sall a na 350 milliards c'est bien mais c'est un aveu d'échec parce que si ba 9 ans après nga ne gagné 350 milliards pour les jeunes ça veut dire tout simplement que nga avons la nga milliards. boobaak léegi dara lu yàqu day doon yow te damay wax saa su ne ni jànguloo tari amut fenn moom président Macky Sall lii nga xam ne moom la jëme ci ndaw ñi san ai discuté avec le président Ousmane Sonko Sénégal waroon woon a toll foo xam ne ndaw ñi dañ naan dañ leen di wutal liggéey parce que ndaw ñi ñooy Sénégal Mais figurez-vous que la moyenne d'âge au Sénégal, c'est 19 ans. Nous nga 40 ans nous ñu presque 77 de la population Nous avons une décision ci réew mi ñoom nous avons plus de 60 ans Nous avons plus de 60 ans à réew Nous avons 10 lu matul 10 pour réunion ci réew mi jël décision pour 90 des Sénégalais alors la jeunesse est interpellée moo tax ma ne li amoon ci réew mi fan ku jàpp ne politique rek la nax nga c'est un signal fort et on en a discuté surtout pour les hommes politiques surtout pour ñi nga xam ne dañu war a jël réew mi ëllëg ko cette jeunesse dañu soxla perspective jeunesse bi dañu soxla ñu libérer les énergies pour que ñom ci seen bop ñu mën am luñu ñu ba mën ci yor seeni wéyju et lolu kenn ku nekk ci ñun war na ci bayyi xel li am solo ci waxtaan yu ma seq ak le président Ousmane Sonko moy fertilité discussion bi nga xamné am nañ ko sur l'économie sur la fiscalité sur euh, les orientations euh, en termes de, recouvrement euh, de la dette, en tout cas de, recouvrement par rapport à, à la fiscalité. Nous avons échangé et rendre compte que nous nous disons dara intéressé wu len lumay figurez-vous man ko koy wax au Sénégal, on a à peu près 400 inspecteurs des impôts ci Sénégal donc 90 sont eux dans le Dakar dañuy jël ay inspecteurs di leen Cap dañuy inspecteurs des impôts di ont des compagnie sucrière sénégalaise ne leen dem mission ça veut dire motuñu maire yi Sénégal ñoo inspecteur des impôts Le directeur général yi Sénégal ak PCA inspecteur des impôts yi état nu inspecteur des impôts parce que nous dem vérifier ñooy dem xool dem jëli bi doon rot mais loolu yëpp ñu échanger Nous lu jëm ci wàllu économie nu ñuy développer Sénégal mesure de sauvegarde quels sont les secteurs qui ont solo chaîne de production cette jeunesse mon on en a discuté et li ma discussion c'est quand le président Ousmane Sonko chaque fois ci bi il me dit Bougane vous jëlee réew Bougane vous le Sénégal ça veut dire dafa gore et ci biir wax bi ma koy ne ko vous vous boo Sénégal ça veut dire tout simplement. Ça, ça, veut dire, ça veut dire tout simplement que nous ñaar Ce intéressé du le lu Sénégal du lu réew mi am et que nous ci Bachir rek comprendre Sénégal suñu alal suñu or suñu jama mooy suñu stabilité dal gi am ci réew mi kon moom sëñ Muntaxa bu wootee dal woote jàmm kenn ku woote leneen lu dut loolu sénégalais yi ci fekk te ñun ñii dogu nañu ci fekki ko ci li nga xam ne moom la bëgg bañ nañ ko ba tënk ay poñ jox ko ni ko lii mooy li ni yittewoo mu jël ko gàlloo ko ne moom dana ci taxaw dana ci dox kon am nañu yaakaar ci moom ki nga it moom moo Sénégal ab présentement le président Macky dal ci réew mi la war dama dégg fan yi démb lay wax sax li am université qui est regrettable d'ailleurs mais damay interpeller encore l'État du Sénégal parce que faire régner l'ordre fexe ba dal am ñoom ñoo ko warloo ak askan wi parce que ñoom la ñu jox réew kon nañu fexe ba coow li may dégg coow bu dangereux wax yoo xam ne waxi ñàkk fayda la muy waxi waaso ñu teg ko ci suuf nu mu gën a gaaw parce que Sénégal méritowul lool ci biir waxtaan wi luy développer le sud du pays on en a parlé l'état de la route Sénoba euh, Madina Wandifa euh, Bunkiling Euh, Ulampan jëm Bignona wax nañ ci yoon yooyu et mu am ci ay xalaat yu am solo ci naka la ñu mën a soppee xar kanam bi nga xam ne moom la Sénégal am anticiper ci li nga xam ne moom moo di euh, révolution yu war a ñëw donc c'est dire waxtaan yi nga xam ne am naa ko bari na mais waxtaan wii ma waxtaan ak moom tey dama gën a pourquoi parce que tant bi ñu def lépp Sénégal dong la ñu waxtaane yokkute Sénégal dong la ñu waxtaane Sénégal jëm sa kanam dong la ñu